le concerné mais dafa am ay avocats est-ce que jotul ñu leeral sénégalais yi par rapport ak euh, accusation boobee nga xam ne ma Matar Diop def na ko. oui d'accord man je dis que lii c'est un c'est un c'est un <laughs> ko jàppee non débat autant de milliards yoo xam ne dans un pays. qui se respecte le le le le candidat il est il est écarté soo ma dégloo rek di xam ne c'est un non débat. xam nga en fait cest à xool accusation fu mu jógee. xam nga xam nga wolof wolof Njaay dafa ni sa sa wujj su lee dee sang doo ma sa set mhm. et puis c'est normal des accusations fusent de sa de de l'autre côté loolu ça ne nous surprend pas et puis c'est pas une première le président Ousmane Sonko bi mu ñëwee si langue ba léegi chaque jour c'était c'était c'est une cascade d'accusations mhm. mais xam nga euh, lu mu tudd sax euh, am na wolof am na mu koy waxee y ah, un terme mais jusqu'à présent seen accusation yëpp amuñu benn preuve xam nga accusation preuve moo koy moo koy dëggal hmm. mais nit ki soo dee accuser nit naan dafa recevoir xaalis naan jot na xaalis fii jot na xaalis fële lii la wala lële la. mais un journaliste mais, est allé plus loin wax na sax. fi xaalis bu revenir sur ces revenir ça dinaa dinaa wax si ñoom après mais dama lay wax rek pour vous dire que ñoom seen wax amul benn crédibilité parce kenn du leen déglu ku leen wax dañuy jàpp ne ay waxi tappale ak ay waxu yàlla na ma maa ngi jéggalu les les les les téléspectateurs. non mais da ngeen am c'est en réalité da ngeen am devoir de déclairer la lanterne. waaw niveau de l'assemblée que ça a mais soo ma dee soo ma dee soo ma dee mm. doo ma il faut nga déglu ma pour ah, pour ma comprendre. Mm. Euh, xam nga wax ju bon su jógee ci sa noonu nit ñi dañuy comprendre que c'est normal parce que sa noon moom walla sa adversaire mënul wax lu rafet si yow. Euh, c'est pas la première fois aussi ñuy jël ay accusations di ko teg ci kaw le président Ousmane Sonko. mais jusqu'à présent accusation yi fi jaar yëpp ak bi si mujj nii amuñu mësuñu teg benn élément de preuve pour wane ni lii ñuy accuser le président Ousmane Sonko mën nañ ko dëggal. xam nga tey say su ñëwoon ñu ne la jot nañu benn virement bancaire su ce que war nañu jot benn lettre publique ba Sénégal yëpp gis ko yaa comme le di ce ce fameux député là. Mm-hmm. est-ce que vous comprenez bu boobaa yéen journalistes yi ak ñi koy déglu daañu mën a wax ni kenn ah kii it wax mais du financement yëpp ay am trace waaw non non non waa waa waa mais xam nga xam nga soo xam nga finance ak loo mënti xam nga donc soo demee ba di soulever une accusation contre une personne mais da ngay da ngay am preuve le député là en question tey say suñ ko porté woon plainte le président par pour diffamation yóbbu ci lan moo tax porté woon leen ko aussi on n'a pas le le li li tubaab bi di wax rek la caravane passe les chiens aboient la caravane passe ñun amuñu temps wu nekk di tontu ay nit ñi nga xam ni vraiment ils sont il appartient à la page tournée de l'histoire du Sénégal parce que ñun ñun ñun non damay damay kii ñun vraiment on dañu am objectif suñu objectif mooy euh, def la tout pour suñu candidature le président Ousmane ko jàll su jàllee ñu gagné les élections yi ñu xool euh, ba pare ñu andi programme ma xam ne daañu ko proposer les sénégalais. mais sénégalais ñu ñu ñu transformer le Sénégal sur ça. voilà non non ñëw ba ngeen toll foofu alors que vous traînez des casseroles. non noonu non on ne traîne pas des casseroles non non yow yaa jàpp yow yaa bëgg a jàpp loolu. non li ñu wax la. maintenant kooku wax na ko yéen yéen yéen soit. ñaar moo am. ngeen génn ah. wax ne du doolu ngeen indi lu koy fi ne wala ngeen porte ko plainte moom mu dem moom mu dem. indi ay preuve après sénégalais édifié mais vous pouvez pas nous dire avec des accusations aussi graves. Ah. ngeen ne non euh, que. c'est euh, le chien qui aboie et la caravane passe. la caravane elle va pas se elle va pas passer. elle va s'arrêter le temps qu'on règle ce problème. monsieur euh, Cissé ah. waaw apparemment yow dafa mel da nga non non je veux que yéen ngeen jël ko au sérieux. non non xam nga ñun en fait lu xam nga duñ ko jël au sérieux. parce que non seulement li mu wax ay waxi caaxaan la. Mhm. ñëpp xam nañu c'est des mensonges. d'accord c'est un tissu de mensonges. cousu de bout en de, à la fin. Est-ce que comprenez? Mais ensuite. Mmh. mais ensuite il a aussi le fait que ces propos-là. et comme le disait l'autre jusqu'à l'extinction du soleil du ñu mën a am aucun élément ba nga xam ne daañu ko wan Sénégalais pour dëggal li ñu wax. te te a un journaliste a beaucoup de qui sont subtilisés te kenn amul trace. donc non non non non y' a a y' a un journaliste qui dit des propos. essayant di dëggal lu mu wax gis nga ces genre de cette cette race de journaliste là nga xam ni yàlla ma yàlla baal maa ngi oustaz maa ngi jégalu te di jégalu tuuti ñaa xam ni fen rek nañuy dundee en réalité non mais man non non non loolu laay wax c'est man je dis que en réalité fête la ñuy dundee parce que. non parce que ko wax loolu. non mënoo ko wax loolu non ko wax loolu non non. non loolu la ñuy dundee je vais pas ko wax loolu parce que yow tam yaa ngi koy accusé loo xam ne wóoru la tey jii bu la toppoon ci yoon. na ma topp yaa ko souci doo doo ko doo ko doo ko prouver parce que fekkee woo fu ñu koy joxee xaalis Euh, ci ci ay fen comme ni nga ko waxee bu koy dund donc là c'est c'est quand une affirmation gratuite boo xam ne ça peut je lui donne l'autorisation que na ma topp man maa mm. ko wax loolu je l'ai dit aux yeux de tous les Sénégalais mm. ce journaliste là ces trois journalistes sax laa wax ñoom ñëpp ku nekk am na benn histoire rocambolesque te histoire boobu euh, man ñaanuma ko yàlla am ñaanuluma ko yéen kenn am ko ci aussi. mais mais ñoom ils n'ont pas demandé de ces journalistes des insulteurs publics au Sénégal ñëpp xam nañ ko est-ce que vous comprenez l'autre journaliste yaa ngi comprendre na expliquer na wax lan moo ko jëlee fi mu doon liggéeyee ba mu dem créer son journal

Pastef c'est-à-dire bu ñu waxee loo xam ne neex na leen euh, le journaliste il est bon bu waxee loo xam ne arrangé wu leen il est mauvais. Mm. te loolu aussi ça ne passe pas. non non parce... non déglu déglu. mais c'est ça si xam nga am na yeneen xam ne aussi soo ko dee wax. da ngay jàpp ne ñun aussi dañu nekk ay euh, nit ya nga xam ne saa à dire dañuy seet. ñëpp ñun am na ñu ñuy critiquer pourtant ils sont ah toujours oui, avec nous yéen vous voulez être les les, les, les gendarmes de la presse ñun ñun c'est vous qui donnez les bons journalistes ñun wutuñu kenn ñun wutuñu kenn mu ñuy ragal suñu ginnaaw est-ce que vous comprenez ñu wutuñu kenn mu ñuy ragal tey yaa laajuñu kenn mu ragal ñu suñu mm. ginnaaw mm. parce que ñun dañoo bëgg a jël ci Sénégal ci dëgg jiite ko ci dëgg